mënul nekk ministre des finances euh, pendant son magistère Sénégal def ses meilleurs taux de croissance Sénégal lépp xaalis bi mu lépp yépp mu bëgg a ñëw di rëññee dara de 2014. Ouais, à 2019 bu jàppee ni moom mu nekk ministre des finances. non bu jàppee nekk ministre des affaires étrangères dellu siwaat en tant que premier ministre lan lan la fi mën a. mënul ñëw wax ni day def Macky Sall sans Macky Sall. moo tax moo tax seen changement slogan bi. le changement dans la continuité dynamique parce que mënul wax. mënul wax ni day def di Macky Sall sans Macky Sall loolu boo ko waxee noonu Macky Sall yëpp dañ lay bàyyi. dafa war a am rupture kon. mais tu es boo deful discours de rupture nooy def am am na ba bu ñëwee ni li Macky Sall defoon baax na su ma ñëwee loolu rek laay def. mais ça ay nit yi Macky Sall rek lay am. bi ñuy alors que dafa soxla yeneen nit yu nit yi Macky ñu bari bu ñuy expliquer. Hmm. le pourquoi du choix de Amadou Ba il disait Amadou Ba pourra compter sur Benno mais il peut rassembler. au-delà de au-delà de au de Benno waaw et am na Ablaye Seydou Sow wax na ko mhm. nee na on va avoir des surprises dinañu gis de grands opposants yu dem rallier Amadou Ba Souleymane Jules Diop ñëwaat fii wax ko ndax waxu adversité kese la wala lu dëggul lu mën a nekk la ngi ñëw yu jóge opposition dem di rejoindre le camp du pouvoir mais c'est des c'est des oppositions crédibles non ñu ñu bare ngi ñëw ñu am nit ma ne ñu bare ngi ñëw ci Amadou Ba ngi ñëw ci Amadou Ba mais comme ñan non ñu bare ngi ñëw ci Amadou Ba loolu kay maa ko. mais est-ce que xam nga oppose waxuma oppose waxuma opposant boo xam ne benn moo jabar ma nekk ci parti bi de. dama ne ñu bari dama ne opposant bu euh, soxna si man li ma la wax kay jàpp ko ñu bari ñu ngi ñëw ci Amadou Ba ñu bari. appareil parce que xam nga moom xam nga moom. Euh, est-ce xam nga ne Amadou Ba bu demoon élection en dehors de Benno Bokk Yaakaar ci lay ëpp chance su gagné. ah mhm. c'est-à-dire bu Macky Sall tànnoon keneen. moom mu demal boppam. génne ko mu demal boppam réew mi pay beeku non seulement dina jël li ëpp solo ci Benno Bokk Yaakaar mais ñi nga xam ñëpp mënuñoo ñëw ndax ay noonu makk Sall la ñoo ñëpp après dañuy jibaa beeku topp ko xëy na Benno avantage la ci moom waaye inconvénient la ci moom. handicap la ci moom waaw. wax Benno appareil la boo xam ne moo yor nguur. am na lu muy def ci moom mais am na lu bari lu mu koy yàqal. mais. parce que c'est pas un personnage clivant xam nga baax na ma bëgg a wax que moom euh, boo ko bëgg doo ko bañ parce que xuloowul xeexul ñàkkul kersa bonul soxorul reewul comprendre voilà.